tey bu ma yàlla doon yóbbu sax salle bi may nekk day climatisé kon ci jàmm laay dee de gars yi wax nii rek duñ def dara. génn. Oh. li nga doon def gars yi est-ce que duñ ko def génn wala loolu ci moom lay dépendre bu indee yar indi tey génn. mi ngi noonu ça dépend ci adversaire bi rek man moom adversaire. Ah. nooy ñëwee rek ñun laaj loo kupp rek dañ koy baal. yow moom da ngay taxaw rek di xaar di ko déglu. dama leer. Ah. loo loo kupp rek loolu lañ lay fay parce que on est prêt quoi. di génn. solo solo suñu xel. boobu mm. euh, rien dire nag mais après ci la ñuy comprendre baax a baax a baax waa ji ñëwul pour caaxaan. Mm. dama kenn fayal suñu bët yow. wallaahi al azim. Mm. fayal suñu bët sax. nelawuñu ba nelawuñu ba xalaat sax wala ñu koy jandeel. ah loolu moom muy keneen ak keneen. man ñoom ñooy samay morom. ñoom ñi. ñi may bëreel ñoom ñooy samay morom. ñeneen ñi ma doon bëreel ñoo mag foofu sama morom laa jël kon da bëggoon ci génération mbay guy gi. non falaa koy kal ñoo ñooy samay morom. parce que xam nga mooy li ñuy wax rek dëggoo Modou Lo li mu wax. Mhm. léegi lii phénomène la lii mooy ouverture làmb nag gat ñun nañu jël ñoom Diène Kaïré ñoom mbay guy gi ñoom ba ñoom euh, Eumeu seen mhm. ñoom euh, Gris Bordeaux ñoom bu ñu amee fit dañuy jël ñun. Mhm. comme Modou Lo ni mayee sens booy ñaar. loolu mooy ubbi làmb. may chance Ama mu échec mu jël Boy Niang Boy Niang mm. mooy ubbi mm. euh, bu fekkente ne mm. rek après ñu dem retraite mais sa vie sa objectif. bu eh, am nañ. non mais sama objectif bu jën kay rek sama objectif c'était Zarko day làqatu chaque fois day signalé gauche jàpp mooy xam nga naan non jos na ñëw yi fekk yëpp am na fi am na loo bëgg am na ci loo nekk mais da ngay da foo jëm doo egg de gaa yi bu fii fekk ñu génn feneen ñu kese saa yi ñun daal làmb ji bàyyiwuñ kenn kon moom muy journaliste sax bu amoon licence tey bu ñu joxee sama combat mu ne ñu fay ma ko jar na ma parce que dama toog Europe. def euh, sept ans presque. xam lépp xam lu baax foofu xam lu bon foofu. donc euh, su ma su ma demee ba su ma demee ba dellu si fii nii te bëriwaat. Mhm. kon donc eh, day nekk lu ko jaral parce que dañu ñëw liggéey. Mhm. moo ñu ko caaxaan liggéey moo ñu mhm. moo tax ñu bàyyi Europe ak li mu tamit teral suñu ay xarit teral ay waajur loolu moo tax ñu jógee foofu ñëwaat pour xaar benn mbir ah wax dëgg yàlla. dafa ñëw pour jox ma sàmm ma dem dañ ñëw pour liggéey. comme que mooy suñu métier. amaana yàlla moo yàlla moo ko def suñu destin. kon donc dañ koy fonk respecté ko amante ko ci yoon. leneen. amul bi ñuy xaar bi kañ nga ko jënd après Ada Fass wala avant Ada Fass Zarko <laughs> fi mu toll nii macha allah. non mais tamit eh, ñu ngi sant yàlla daal. Hmm, kañ nga ko jënd kañ ko jënd avant hmm. Ada Fass wala après Ada Fass. <laughs> non mais kii dañ kaa hmm. moom ay baaxal ñun sareet ak si oto ndaraan ak camion aale lañ yemale million ak mille dara feesul suñu bët donc nekkul loo xamante ni lii yëf àdduna la rek dara alalu àdduna la rek dara wallahi azim dara alalu àdduna la rek hmm. te képp koo xamante ni jeune bi gëm sa bopp gëm fi nga jëm rek war nga mën na te ñun suñu man rêvé naa sax gaare avion biir Sénégal wax ma ay oto kon donc ñun ci moom dara Zarko kañ ngay takk soxna yow dañoo bokkul objectif nag man ak moom hmm. nit moom bu ngeen bokkul objectif mu leen bokkul ngeen parce que man sama yaay dafa musa ne Zarko bëgguma nga tax jabar di ko dugal ci kër famille mhm. nga am sa kër bopp mhm. laa koy tax a jabar te yàlla def na ne yëpp macha allah sotti na ñoo mhm. xam naa léegi léegi rek la am lu mel mais am na koy am na koy kii ah, dëkk grave grave sama jabar génn grave hmm. grave mooy sama Paris mooy sama fa mooy sama ban secteur grave Grand Yoff dafa la ko wax tey. non parce que Zarko mun nga ni Grand Yoff fekk Grand Yoff am nga fi ñett wala ñeent. non naa fi yu bëri sax mais kenn laa nopp. Hmm. am naa fi yu bëri. ñoom hmm, sant. non boo xam ne da ngaa sopp jinne yow kenn du la kenn du la jox ay indice. waaw maa lay jaajëfal kon ba ci kanam. waaw mais ñu ngi kontaan bu baax a baax yéen aussi tamit di rafetlu seen liggéey. Hmm. di di leen wax nga xam ne seen liggéey rafet na surtout di ngeen di ngeen. lii lii nii. Mhm. moo manqué maanaam Grand Yoff. nga mhm. yéen journaliste yi. Mhm. ñu ne dugg Grand Yoff di laaj nit ñi di sonal nit ñi. bu yàggee lu bari dina wàññeeku. parce que moo xoolee yeneen secteurs yëpp sont visuels. ba mu des Grand Yoff. leen dugg ci biir nit ñi waxtaan ak ñoom sensibiliser jeunes yi surtout jeunes yi. ñu waxtaan ak ñoom di leen di war di leen xamal. lan mooy àddina di leen yee di leen conscientiser parce que avant amoon na ay émission yu bëri yu ñu doon def pour les jeunes ñu léegi kenn dara télé yëpp site yëpp bu mbaay weerante mm-hmm. weerante xasante rek la ñuy def mm-hmm. loolu mooy àddina mm-hmm. Sénégal yéen yéen a ko mën a defar les journalistes créer leen seen ay émission woo jeunes yi di ci waxtaan ak ñoom di leen conscientiser loolu moo manque jeunesse bi fi mu nekk nii jeunesse jeunesse Afrique sax laay wax dafa réer dafa réer fi mu nii ndax TikTok ndax Instagram Twitter Snapchat dañoo réer ndax loolu fi nekk belle vie rek la ñuy gis ak noo ko amee baax na kon loolu mooy surtout yéen yéen da ngeen ci am part responsabilité bu rëy rëy boo xamante ni yéen bu ngeen échecgee rek jeunesse mhm. Afrique day échec mhm. donc yéen loolu noonu ñu doon def bu njëkk ba ah. delloo si waat leen ko mhm. ngeen pour ngeen defaraat ñu defaraat suñu ay rax defaraat suñu ay doom di leen di di di di zone 7B de Grand di kontaan ci ñëpp di jaalewaat encore suñu maam di ko masawu di ko ne fi mu jëm yàlla yàlla ko gënal fi mu di ñaanal képp ku fekk sant bu baax a baax sama maam di gërëm sama yaay. Hmm. jërëjëf Ndour Daara. jaajëfati jaajëf Zane. Hmm. avance kii la